mbokk yi tey am nañ mbégte jàkkaarloo ak euh, jëmm ji nga xam ne moo di Cheikh Ismaïla Diouf Nouroullah ci liggéey bu am solo bii nga xamante ne bii mi ngi koy liggéeyal lislaam ci yar ndaw ñi ci jàngal leen alquran jàngal leen seen diine waaye nàmpatal leen ci doon taalibey Serigne Touba Xaadimu Rasuul yu di ko liggéeyal tey jii nag ndigal agsi ci moom mu di ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Mahamadoul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Xaadir ñëw ci moom muy ab gor bu mu fas yéenee gor ca tool yi nga xam ne moo di xisnul abraar ca nekk ca Thiel sës rëkk ca barbar ba tey jii di altene yemoo ak eh, ñe ñetti fan ci weeru baraxlu dëppoo ak juróom-ñaari fan ci weeru mars ñu toog fii ci kanamam jàkkaarloog sëriñ Aliou Konté di jëwriñam ñu toll ci war a départ ngeen gis ñuy yëpp bagage yi noonu eh, ngir liggéeyali yàlla ngir liggéeyali lislaam mu jox kàddoom sëriñ Aliou yi Ah, di sant sunu jawrin ji nga xam ne moo dox sunu diggante xaadim rasul muy Cheikh Ismaïla Diouf ah, ñu lépp nu teg ko ci loxoom ah, sëñ bi noo ngi lay delloo am nuyoo bu baax sëriñ Ismaïla lii mu ngi ko tàmbalee 86 boobu 84 la toog 86 ci la tàmbalee liggéeyal sëriñ Touba defe naa booba ba tey ku fi nekk nekkal fi sëriñ tuuba làq nga ngërëm euh, euh, sëñ Ismaïla làq na sa ngërëm. ci toolam yi geloor ci la mu jàll géeyale sëñ Saaliw booba euh, daa am liggéey boobu mu njëkk a woote sëñ Cheikh dafaa dem liggéey ko mu woote waat beneen liggéey geloor ndax xer ci sëriñ bi rek at mooma liggéeyal na ko ñaari yoon ah loola nag digganteem ak sëñ Saaliw a demee noona ñuy wax ñëpp nag di ko yëgal àdduna bi ne koo xam ne dara ñoru ko lu moy liggéeyal Serigne tuuba ndax dama ne Serigne Touba yàlla de koo fee yonent Muhammad sallallahu alayhi wa eh, waaye sëñ Ismaïla it yàlla de koo fee Serigne tuuba ndax ku liggéey Serigne Touba li mu liggéeyal yonent bi lépp dama naan. Eh, eh, Cheikh Abdul Xaadir Jilaani mu nga feeñe ca Baxdaad waaye defe naa ku ñëw fii danga fi gis nit ba defe ne kii mooy setub Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Cheikh Tidiane Chérif feeñe ca Marok waaye danga boo demee tey Kawlax da ngay defe ne foofala la Cheikh Tidiane feeñe nga dem ci Alaaji Malik defe ne foofala la feeñe nga dem ci eh, eh, nga dem ci Ceneba eh, defe ne foofula feeñe ma kon sëñ Touba it ndax loole gaayoo ya am de ko war na a am am gaayoo xam ne dañuy ñëw di woote di liggéeyal sëriñ tuuba ba koo ci gis ne sëriñ Touba ngi nii sëriñ Touba liggéeyam weesu na foofu ndax mu ngi naan laxoo xitaabi daa iya bi ma yuhibu maadiya wa xaadali axraadiya saadan li daaril karami kon defe naa kooku lépp loo man demanal ku lu waay dégg ci mbirum sëñ sëñ na seenu lel ko o pang ñëw kon o fognu seereer in way simnayo nuun no kaddu no paaxoxe ta ref a Ismaila Diouf Nourou la yasam ta miñ me to wod nda koy a paam nu ɓaslum nene ta ref a Serigne Khadim Diouf fo xu ndeɓum xu teedu nene yasam roog a fi'ana nuun na barke Cheikh Ismaila yéene ne nu siqnayo mu nu bogna te mbad yasam nu njelno in way ngeɗana nuun i layaam i njegeelu ɓoñ na barke Cheikh Ismaila Diouf kon yasam roog a fi'an na nuun na wene andoona te Sëñ Basa Lulu eh, laam Sëñ Ismaila o ten dara ɓeleeran ɓoñu liggéeyan a Xaadimu Rasuul ndaa koy nuun o fog ole nuun seereer we in we nqooyaayo nuun no calel kene Sëñ Ismaila jala ta ref ande calel Sëñ Tuubaa laam Sëñ Tuubaa de te layu le eh, képp oxu liggéeyan a xama mu oñtoona onjere yon kay fo bakarane sutu to euh, euh, waxo gidmuma ka ngi no ngidim roog to ya of fo of yeg keran to mbayeer no mbatin kon sëñ bi loolu sëñ Touba daa waxante woon ak maam Thierno mu ne ko Thierno mu ne ko Mbacke mu man ku ma gërëm ko ku ma liggéeyal boo ñàqee mu ànd ak bàkkaar ba ku ma gërëm dinaa la yeew ci ngërëmal yàlla say waajur duñ ko yëg te mënuñ koo dindi dañ ne ku sa ñaari waajur gërëm ne na nga texe waaye déedéet tubaab bi ay waajuram gërëm nañ ko waaye yàlla gërëmu leen de ku yàlla gërëm moo gërëm nga doga mën a am gërëmal yàlla sëñ Ismaila mii nag yàlla de koo gërëm yonent bi gërëm ko Serigne Touba gërëm ko mboolem xulafaa yi gërëm ko yonent yu njëkk ak yu mujj yëpp a gërëm Serigne Touba mboolem wali yëpp gërëm na ndax gërëm nañu Serigne Ismaila Diouf comme noonu Serigne ba waxoon ne. mbo eh, abo Assane al Sassari gërëm na ko Cheikh Tidiane gërëm ko Abdoul Kha Cheikh Abdoul Khadir Jilaani gërëm ko yonen beeg ki saabaam gërëm ko mu nekkoon ku ko gërëm wu defe naa waaye sëñ Ismaïla nit loo yaakaar rek ne gërëm ko gërëm na ko ci liggéeyam bu rafet bi yàlla na fu mu ko bëgg a àggale yàlla na ko weesu. ñoo ngi sant yàlla di jël ci yonent bi du sant Xaadim Rasool di ñaan ci barke Xaadim Rasool Mm, daraj yonant bi ñoo ngi jiital sunu siyaare ci seen Muntaqa mi nga xam ne mooy Sëñ Tuubaa di sunu wasila di ñaan ci daraj sunu boroom yonant bi yàlla may ko wér ak fan yu ak njabootu Sëñ Tuubaa yëpp ñu di ca tegu ci jawrinam Cheikh Sidi moom Cheikh Abdoulaat di ñaan yàlla bàyyi leen fi seetu sëñ Tuubaa yëpp maa ngi ñaan ci barke sëñ Tuubaa yal na yàlla yàggal leen fi maa ngi siyaare bokki tarixa yëpp Tijaan Xaadir Laayeen Ñaseen di sant itam e, liggéey bi nga xam ne ñu ngi sant yàlla di ñaan ci barke sëñ Tuubaa e, mbooloo mi dem ci jàmm ñëw ci jàmm ni e, sant yàlla bu baax ci gaaw ñun suñu wax du ci bari xanaa dañoo bëggoon a yoon rek ci xam ne sëñ Ismaila Taal bi sëñ Tuubaa la eh, saa guddeeg saa bëccëg yëpp sëñ Tuubaa ko jox sëñ Galas si la nag ñu ngi sant ci sa dëkk bi nga xam ne sëñ Bas moo la fi yónni ñu sant yàlla itam di ko sant di ko ñaanalit ci maqaama maamam yàlla bay ko fi ndax sëñ Galas daa mel ni man te daanaka lu ci ëpp si doole ci set yi mën naa wax ne ci jamaan Sëriñ Abdou Lahat laa dugg ci yoon bi eh, bu ma demee ci sëñ bi Abdou Lahat boo mu jàpp saa bopp la wax ne sëñ Ismaila Diouf ki ma àndal ci waa kër sëñ Cheikh Ibra Sarr la bokk muy set sëñ moo doomi bi ñuy wax Cheikh Sarr boobu njebal ba bari wax lu bari wax ñu ngi ko ciy wax waaye lu ci ëpp doole damaa bëgg a leeral nu mu deme woon bu ñëwee li ca yéema sëñ bi ba ñu eggsee guddi booba gis naa sëñ bi boo ñëw bu am lu mu def ci man moom Cheikh Abdou Lahad bu ma xëyee laa wax ne tey di dinañ gis sëñ bi ba ñu eggee Cheikh Diop yónnee ne ndax sëñ Ismaïla egsee seegut waa Mirina Sarr egg seegu ñu mën a egg si na bu ma ñëwee ci sëñ Abdou Lahad ba dugg sëñ bi kees gu ma fekk mu ne daa tëj lu kees bi da am benn taal boo xam ne da caa bokkoon nekk ca bu mu demee bay jàpp saa bopp la wax ne seex kee naa na gën bu mu bu ko seex doon da ko roñu sànni ko fee tëj bunt bi mu ne sëñ mu ne seex saar nu mu tudd mu ne sëñ Ismaila Diouf mu ne sëñ Ismaila Diouf yéen bi nga diis yéen gin la na lool waaye teel nañ biñ la di ti diis na lool waaye tee nañ na ko fi ñetti baat la wax ñetti baat yooyu nag mooy magal daa salaam bi may wax ne eh, ku séeréer bu toobee jéglu penku tey bu fekkoon yooyu amutoon kon benn séeréer du toog jéglu penku kon nag loolu laay wax ne dama bëgg kuy waxati xam ne bari ñu ngi wax ne bokkoon nañ ci njebal ba waaye kenn ci bokk woon ndax jamono yooyu am na seex yoo xam ne xamewuma leen sax eh, bu mu génnee nag seex Joob ne ma ah noo gisulee mu ne bu soobee yàlla dinaa toog suñu ab laat de bu ma ko joxatee loxo mu wax ne juuf waaye de dinaa topp lii ma wax de fos naa liggéeyal sëñ bi boo ñëpp xam ne ne sëñ Ismaila dugg na ci yoonu murit bu may dem jóge fa an naa ak suñu ab laat ba mu ne ma sëñ Ismaila Juuf loo jublu ci lu baax yàlla na nga am ca ndam mosumaa jublu lent am ma ca ndam ànd ak sëñ Saaliyu ba mu gërëm na sëñ Ismaila Juuf ku gis muy dox sax na xam ne mu ngay dox ak sama ngërëm sëñ Mourtala gërëm ma sëñ Abdou Khadir it ni ñu sante yàlla tey booy bés mi tey jiite na ma surang ay julli yu bari ci fajar waaw ci jamono yooyu ma nekkee ci ak Thierno ci dundam jiite na ma julli yu bari ci surang ci jàkkam boobu ah buñ ku ci nekk nag bi ko yàlla di jël kenn ku nekk mën naa wax ne loolu duñ ko egg waaye ñëpp mën naa bokk ci waajtaay ga mën naa xam ne kenn ku nekk mission bi la Sëñ Tuubaa teg ànd naa ca dinaa ca liggéey itam kon li ma sant nag yàlla tey mooy Sëñ Bass ñu ngi koy ñaanal yàlla bay ko fan yu te xam ne yaakaar bu mu am ci man incha allah de askan gi nga xam ne moom la àndal nu ñaanal ma te bu soobee yàlla nu mu ko boggee de dinañ ko defe boo xam ne xolam dina sedd liggéey gi nag nu ma ko bëggee dëj la gor dëj làkk ko ba dara bu fa des seex yaa ngi nii toog suñu Abdou Diawlin suñu Aliou yéen ay jiite liggéey gi yéen yay dem bu buñ demee nag ba liggéey bi egg suñu xaadim dina ànd ak ay rakam yi ñëw yéwi mbooloo mi kon loolu daal mooy ndigal gi ndigal moom bu jogee jëf rek a ci des Cheikh Ibrahima nag moo amoon ndigal mon ndigal xam ndigal am tere am montele ku fi nekk soo doon sëriñ Cheikh Ibrahima la ko may ñun nag jaawale wuñu réeruñu xam nañ luñ doon xam nañ luñ doon ci Sëñ Tuubaa xam nañ doon ci Cheikh Ibra Fall ah, loola tax nag saa bokk yi ma àndal ma fos yéene nu den buñ nan doon gaynde sibbe gaynde sibbe laa bëgg de xam nga lu gaynde sibbe abdulaat ndax sëñ gala si xam nga gaynde gaynde bari na si biir bi nag mooy mooy gën a ay gaynde sibbe moom bu jógee day def ndànk rek bu ba yëf ya jalee rek mu soog a jog di ñaan suñ bas itam nu ngi koy xamal ne ñun détaal bi suñ tubaa lañu damay wax ne nag matériel suñ tubaa nag ku ko bëgg a jël ñun de matériel suñ tubaa lañu ah séeréer nag am na lu mu bañ a ah, bëggut xiif te lépp naal naal fa doy kon bu fa doyee de incha allah ñetti fan fii gaaw dimanche altine balaa egg foofu de lépp dina leer kon loolu daal ngeen dem ci jàmm ñëw ci jam loolu nag lii boo gisoon ma suñu galas ma wax ko dama xam dama am xer rek ci liggéeyu sëñ bas bi te wallaahi nu mu ko bëgg lañ koy defee. mbokk yi yaakaar naa ne eh, tungu ni dox ne wolof na ne tungu ni du teew ñuy nataal moom waxal na boppam li ko indi ci yoonu murit waxal ko itam fi mu jaar. ak ni mu jaayanteeg Cheikh Abdoul Ahad mbakke mi nga xamante ne bii moo fi nekkoon ñetteelu xalifab Serigne Touba kon yaakaar naa ne ci biir wax ji jot nañoo dégg na kon bu doon doy làq na ngërëmul Cheikh Abdoul Ahad waaye nee na ko yan bi diis na waaye dana am ñu la ko téel bu doo yëg na diis na bu doon doy làq na ngërëmul Cheikh Abdoul Khadir bu doon doy làq na ngërëmul Cheikh Abdoul euh, Cheikh Salih bu doon doy làq na ngërëmul Cheikh Mamadou Mourtada waaye làq na ngërëmul mbooleem ñi fi nekkal Serigne Touba la ko tàmbalee Cheikh Mamadou Lamine Cheikh Sidi Mokhtar ba agsi ci Serigne Touba Cheikh Mamadou euh, Mountakha tey jii nag cheikh Mouhamadul Basir di caatum cheikh Abdoul Khadir yore kàddu yoonu murit moo ko jox ab liggéey ca daara yi xisnul abraar eh, innal abraara la fi naimin yaakaar naa ne foofa la gaañ a jëm yal nañ fa daje nag ak xéewal yi ni nga ko ñaane yàlla yàggal la ci jamono yàggal fi sa njaboot eh, yoon wi nga leen jaarale muy siraatal mustaqim sun borom xalal la ko ba doo dajeg menn pak bañ àgg ci kanam na Ahmadul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.